Malick Gakou yaramam dafa tàng nee na candidat la te moom mooy daan Macky Sall ay mali Gakou ay mali Gakou lu mu wax rëy la nee na je battrai Macky Sall en 2019 ñu seeti candidature booy Guédiawaye booy banlieue l'homme des banlieues il s'appelle Malick Gakou prétendant pour être le président de la République en 2019 Malick Gakou waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw maa yëngal gësëm maa yëngal gësëm maa yëngal gësëm maa yëngal gësëm bilaay maa yëngal gësëm maa yëngal gësëm yëngal cosaan jërëjëf jërëjëf maa maa ne gis man maay kii daan Macky Sall dama ne waa Sénégal waa biir réew mi waa diaspora waxtu jóg jot te jóg naa bi nga xamee ne jóg jóg la dama ne réew mi réew la boo xam ne. bi fi libéral toogee ba léegi de dix-neuf ans ah. te socialiste yi dafa jël nag pour ñu toogaat jëlaat seen place bi nga xam am ci réew mi dama Sénégal nañu jàpp ne kii nga xam ne mooy daane Sall bu kenn ku dul Malick Gakou dama ne am naa fit jàng naa xam naa politique xam naa administration yàlla may na ma du ma naa fekk du amul xale yi bëgg nañ ma ah? téléphone jot na pour bi daal sëdu dama Senghor ca Joal Abdou Diouf ca Louga Abdoulaye Wade ca Kébémer Macky Sall ca Fatick e dama ne Dakar dama ne dama ne su ma la dama ne yéen ah dama ne dama ne ma Malika Kuu eh, dama ne dama ne dama ne 2019 bu soobee yàlla bu neexee yàlla dinaa yëngal dinaa gësam banlieue capitale région dafa jot ne Macky Sall daan maa koy cabaxal maa koy yóbbu maa koy baaroo ma sant réew mi dama ne man maa